inni la xillu liman mama inni la xillu liman mama bii de li ko waral xam naa ne mooy bis bu bisub sant yàlla la ak Cheikh Mouhamadul Fadal mu bàyyi ko ci suñu waajur El Hadj Mor Gueye moom suñu fàllu mu bindoon këyit woo xam ne nii xam naa mi ngi ko bindoon ay 98 97 la bindoon bàyyi ko fi ne bis bi nga xam ne ci la ko sëriñ Serigne Falilou woolu woon ne ko jox ko dëkk bii di Touba ngir mu doon chef de village 1965 ginnaaw sëñ Abdou Bousso. bi bi ko sëñ Abdou su yoree ginnaaw bi sëñ Abdou sëñ Fallu bëggee ku yor dëkk bi bis ni ko tey jii ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru baraxlu ci la ko Serigne Fallilu woolu woon ngir jox ko liggéey bis boobu nag lan du bis ci la ne woon moo bisam bind ko bàyyi ko fi ne bu ñëwatee nañ ma ci sant la yàlla ak sëñ Fallu def na ko ñaari yoon nag njëkk na ko def 98 ak 97 waaye booba la ko gëj a waaye bindoon na ko muy ay ay bataaxal jox ko njaboot gi ngir kenn ku ne mën ko am. yàlla defaat ci tawfeex ak xaas joo xam ne ni itam sorewut ak bis bi mu fi jógee ndax biñ mag eh, fukki fan ak juróom-benn ci nisu saxabaan la fi jóge muy bisu bis biñ màggalee Daaru Muxti ba ci suba ga rek mu mel ñaari fan lay lay la la rawanteeg bis bi mu fi jógee ñu ko ciy ñaanalaale. mu sàkk woon ne bu ñëwatee nañ ciy sant yàlla ak sëñ Fallu ak di ko ci defal ay ñaan. ndax ña nga xam ne ñoo faatu nekk barsàq Muhammad yee de boo leen laajoon lan lan gën a bëgg mooy dellu àdduna donte ab saala ñu def ko lu baax. Sëñ Tuubaa moo ko wax isid duha u yan fahu mayitil fil xubur wa yan fahul xayya wa yujibul ujur ñaan day jëriñ ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna di dund waaye day jëriñ ñi nga xam ne ñoo nekk barsaq muhammadiya waxit feneen ne oh, wa arxa wa arxabul lasya ili lamwaati raddu ila dunya maal ayaati maanaam ñi nga xam ne ñoo faatu boo leen laajoon lan lan gën a bëgg mooy dellu àdduna donte ab saa la ñu def ko donte ab minute la wala saa ñu def ko ci lu baax Euh, kon ñun ñi nga xam ne ñun lañ fi bàyyi te ñu am ci ndigal loo xam ne sa waajur la ko digal ba noppi di leen ci ñaanal yooyu yëpp boo euh, dëppoo ci kon ñoo ngi naan ñoo ngi ñaan daal lépp luñ ci ñaan yàlla jotale leen ci ñoom ñooñu ak sëriñam ba nga xam ne moom la doon sant muy Cheikh Mouhamadul Fadal euh, bis bi nag daaw lañ ko njëkk a def ren ji ñun njaboot gi ndax 2019 la fi jóge ñetti at la ci ren daaw ak at yi passé ak yi fi xewoon tax na daaw lañ koy doog a def ren ji itam biñ ko jàppaatee dem nañ ba ki fi nekkal Cheikh Mouhamadul Fadal ne ko bisu alaaji Mor Gueye ba de dafa dellu seeti bu ne boo ne ñëwoon bàyyi leen ko fii du maanaam dootuñu ko naanem ndox mu daal ne jox naa leen ci ndigal wéyal leen ko loolu xel xalaatu ko ni ko noonu it ñaari ndigal yooyu ci ànd nag loolu waral ñu woote waat ko tey ci bis bi nga xam ne ci la ko Serigne Falilou woowe woon ngir jox ko dëkk bii di Touba ne ko dama bëgg nga liggéeyal ci Serigne Touba. Mm, ne ko dama maa bëgg nga liggéeyal Sëñ Tuubaa woo Baxaw Faal bi nga xam ne moo doonoon chef d'arrondissement bi boole leen bis bii nag moom ci la ci la wax ne mooy ab bisam aw kayit la wu mbind ba ko fi bu ñëwatee na ngeen ma ciy sant la yàlla ak Cheikh Mahamadul Fadal looloo tax njaboot gi nga xam ne moom la fi bàyyi ginnaaw ci njiital Sëñ Fallu mi nga xam ne moo ci mag woote ko ñu di ko ñu di ko amal fii ci kër gi mbooleem njabootu Cheikh Mahamadul faadal gi nag ci suba ba tey ñu ci bëri ñi si ñëwut ñu ngi yónnee sëñ Murtalaam Cheikh Mahamadul Fadal léegi la fi jóge ànd ko ñoom noonu la ñu àndee woon ak euh, ñun lépp nag ba mu fi nekkee ba ni mu fi jógee léegi rek maa ngi koy seede ne njabootug alaaji moor Gueye de li leen war mooy jàpp njabootug Cheikh Mouhamadul Fadel ndax Sëñ Fall defalu leen deseelutu leen dara ndax moom bi muy ñëw fii wan nañu li mu fi indaale woon 1946 la ñëw Touba genn gaal gu ndaw la indaale Touba yaa waaye gis nga bi mu toogee te dégg ndigal li nga xam ne moom la ko Cheikh Mouhamadul Fadel santoon ndax 46 la jóge Njàmbur 45 la jóge Njàmbur dem nawal 1945 la jóge Njàmbur dem nawet ci côté Mbour. ba mu fa nawetee ba nawet ba jeex mu lam mu fa amee lépp mu jël ko ne day dem dakaar ngir yaxantu ji ba demee nag fekk fa Serigne lu toog xalifa général de Mouride tournée boobu mu njëkk a def 1946. bi mu demee ba dakaar ci way juram soxna Aram Seck ñëw di ko siyaar mu ne ko Adam Mor Gueye sa doom. fekk am na magam ju ko jiitu ci daara ji muy sëñ Cheikh Gaye nga xam ne waajuram da ko tungoo moon andil ko Cheikh Mahamadul Fadal ndax moom waajuram ca ña njëkk a topp Cheikh Mahamadul Fadal ca bokk sëñ Modou Gueye ñu gën koo xam ci sëñ Modou Gueye boobareel juróom ñeent yi njëkk a topp sëñ Fallu 1913 di tarbiyewu sëñ Fallu waajuram woowa ca la bokkoon sëñ moo Gueye moo ko jur 1913 ba 1921 wala 22 ci la ko Cheikh Mahamadul Fadal wàcce moom waajuram mu dellu Njàmbur ba mu demee am wut soxna 1924 la ab ab taawam gane àdduna si mu turee ko Cheikh Mouhamadul Fadal ñeenti at la mu tungoom ko indil ko sëñ Fallu sëñ Fallu ne ko kii dafa tuuti. da koy delloo xam naa ba déwén mu delloo ko ba déwén déwén sa mu indiwaat ko sëñ Fallu boole koog euh, ne ko ne ko ko daa tuuti ba tey mu ne du du du ma ko waajuram woo ne ko du ma ko fi bàyyee. sëñ Fallou jël ko ngir ndawee gi jox ko soxna aw buso mu ne fa ba bi matee dem daara moom Cheikh Fallou Gueye moomu sëñ Fallou ci la ko yóbbu Madina mbooba falam falam muritoo mu féete ak alaaji Cheikh Oumy Mbaye moom moom moo ci topp nag bi mu demee moom nag baayam la féeteeloon nekk ci dëkk ba baayam wàcc mu dem Dakar di commerce waaye sëñ Fallou ci bopp moo ko laajal boppam waaye juram ñëw siyaar ko Dakar ci tournée boobu mu doon njëkk njëkkit def mu ne ko ana Mor Gueye mu ne ko moom de naweti woon na ko tey mbuur sax ba ën ñëw dakaar gii ba commencé bëgg a liggéey mu ne ko bu subaa na nga fi ñëw te àndaaleel ma ko loolu la ko sëñ Fallu wax ca suba sax mu ñëw fa àndaaleel ko ko mu ne ko mu boole ko ku ñuy wax sëñ man sëñ man mbay tariyaax dëkk mbal gii ne ko kii maanaam loxoom ak sama loxo ba Touba ma ak yow na nga daal di jar saxaar ngeen dem njaareem nga xaar leen ma fa bu ma ñëwee danaa ànd ak yéen ñu dem tuubaa kon moom sëñ Fallu ci bopp moo ko moo ko jël ci responsabilité yi boppam andi ko Touba waaye xelam ci leneen la woon muy xam naa yaxantu wala dara. ginaaw boobu ba mu ñëwee Touba 1946 it la nekk jaar na ci daara yu daara yi sëñ Fallou ñànka euh, ñànka jaar na fa euh, fa la ku ñuy wax sëñ Aliou Diop mm, yàggut ab diir mu wàcc mooy waajuru sëñ Cheikhouna Diop ak ku ñuy wax euh, bàyyi alaaji Mbeng mi nekk sëñ Abibu moom it ba fa ñëwee rek ca jamono yooyu la wàcc ku ñuy wax sëñ Fallou Badiane moo nekkoon jëwriñam foofa ca ñànk mu nekk fa ab diir ginnaaw bi it la suñ alaaji baara euh, soxla matériel bi nga xam ne mooy indi machine jaajëfal bi ñuy gas ndax Touba amutoon ndox moo xam ne ni moom la ñu war a liggéeyee jumaa ji teen bi ñu fi njëkk gas mu muy teen bi njëkk am ndox Touba muy teen boobu nekk biir kër Sëriñ Touba ci ginnaaw moom la ñuy wax jaajëfal tubaab bi indi machine bi mu koy bënne daal di wax ne euh, alaaji baare ne ko mënta ñàkk ku ko saytu ndax matériel bi dafa seer te buñ ko feccee noonu foofu lëndëm na bëri garab il faut ñu jël ci donge yi koo xam ne ni ci la alaaj baare ànd ak bi ci otoom ab jib si ñëw ba ñànk ñu jël ko indil ko Cheikh Mamadou Fadal alaaj baare ne ko kii dana ko man sëñ lu sant ko ko mu toog fa ñetti at ba ni jaaji Fall bënnee mm, ba euh, ñu balance la ci basin boobu nekk buñ kër Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne ci la ndox mi ñuy liggéeyee jumaa ji di jógee nga xam ne moom dafa nekk ba noppi waaye daa continuer di wattu jàjji faal googu ndax da koy taal benn heure bu jotee mu fay ko balaa fajara mu dug mu duyal euh, kër yu mag yooyu yëpp a jumaa ji ay kër Sëriñ Amsatu Jaxate Sëriñ Amsatu Jaxate moom ab wëllëreem loo moom la defoon bàyyib daaraam wax na ne addi yi mu koy mujj jox sax bi mu demee fa la fekk Sëriñ Abdulaat boobu daa fekk mu wàcc moom daal taalibe Sëriñ Fallu loon boo xam ne nii ay guddeem ak ay bëccëgam yëpp ci Sëriñ Fallu la ko daan joyal ba tax na itam bi nekkee ci daara ji noonu ñu tënku ko rek ndax suñu Omar Kane xam naa bu ñëwee lépp dana ko gën a leeral. bi nekkee ci daara yi nekk na aaliya itam yor ay fas yoo xam da ko yoraloon sëñ Fallu bu nawet jotee mu dem yo aaliya ba jiyee li donga ya mm, ba ba nawet jeex mu indiwaat fas yi fas yi mi ngi newoon foofu ci ginnaaw kër sëñ Fallu gi ci ko sëñ Ablaat ba sëñ Fallu ne jumaa ji àggee sëñ Fallu wàcce donga jumaa ji wàcce waale leen xelam nekk ci mbirum commerce nag mu mam nekkoon mu yoraat boutique kër soxna Soda ci koñ bi mooy koñ bi jàkkaarloo ko Sëñ Mor Doj ku fa yàgg a jaar da gis birigu cinq bu amay bërigo bu newoon foofu foofu la yoroon bitig ba 1965 sëñ Abdou Bousso yor dëkk bi sëñ Fallu nag soxlawaat ku yor dëkk bi ci la waxee nañ ko wol ci donga yi koo xam ne nii dana ko man sëñ Ousmane Bousso mi mu yoroon bitig ci këram moo ne ko ku ñuy wax Mor Gueye de xëy na dana ko man ndax euh, yuñ seq ñoom mu ne mu yoral ko dëkk bi comme kon booy xool da ngay da ngay commerce bi nga xam ne moom la moom la jógtee woon ba ndaw bi ne wàcc ci daara ji bëggaat ko ndax ba mu fa nekkee commerce waat na ba jënd oto sëñ daam daraame mii defal ko kaaral ko ko ba muy xalaata jëndaat beneen kon yëf yi na waaye daa mel ne sëñ Fallu moo bëggutoon mu commerce xam naa rek mu jëlaat ko foofa jox ko dëkk bi ba ni sëñ Fallu yu jógee moo yore dëkk bi yor na ko ñetti at yi nga xam ne moom la fi sëñ Fallu mujj a nekk yëpp yor ko ñetti atit it sëñ Abdulaat boobaak léegi it xam naa ca la doxe bàyyi commerce waaye sëñ ñoom moom dañuy borom barke yoo xam ne luñ la tere rek danañ la wuutal lu ko gën te sëñ Fallu yàllaa ko may ba làmmi ñuy barkeel lépp lum lum lum lum la digal rek boo ko toppee da nga def da nga gis njëriñ commerce boobu ma ko doon tere booy xool damay gis ne man bi toogee ci këram gii maanaam defatul dara boobaak léegi waaye ay nit commerce di ko jox te loolu lépp sëñ Fallou ko jox ndax kër kii mu nekk kër sëñ Fallou ko jox njëkkutoon a dëkk fii mi ngi jëkkoon ci kër siñ moor Jaxate mooy kër gi taqaloo eh, koñu kër Sëñ Fallu ba ci ginnaaw kër Sëñ Seexu na am Sëñ Fallu ginnaaw bi Sëñ Fallu bi ñu andee Sëñ Mor Jaxate muy noddu la ko tuxale foofu yóbbu ko ci kër gii ci Dakar gi mooy ci ginnaaw kër Soxna Fat Ja gi soxna Sëñ Abdu Ja ginnaaw duyool yi ginnaaw koñam bi féeteeg marché jàkkaarloo kër Sëñ Abdou Salaam kër googu ci Dakar gi foofu la dëkkoon ginnaaw ba bi Sëñ Fallu nattee dëkk bi nag wax taalibeem yi yëpp yu ko toppoon Sëñ Seex Lo Ngaabu mii ñu ne këram gii ci la bokkoon ne nañ ñëpp dem ba ci ginnaaw ñaar fukk ba ak juróom-ñett muy ginnaaw 28 mètres li li wër jumaa ji da koo bëgg a waa kër sëñ bi. ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak seex yeeg maanaam ay ak ak ak ak waa kër bi daal mooy waa kër sëñ yi ndax sëñ Fallu ay doomam ñoo waroon jumaa ji. sëñ Seexu mi mbay moo dëkkoon foofu kër sëñ Abdu Borom dër bi ne. alaaji baara moom dëkk fii kër sëñ baara ne ginnaaw bi la dëkk kër sëñ Basiiru kër sëñ Tuubaa gi. ginnaaw bi lañ ko jox sëñ Basiiru sëñ Fallu bi mu wootee ne nañ dem ci ginnaaw ñaar fukk ba ak juróom-ñett ñoom ñëpp ci lañ toxee foofa ñëw fii nag waaye fi mu booy xool fii ñu leen indi moo gën foofa daal loolu lépp ci nangu ndigal la ak nangu waxi waxi waxi nangu war nañ cee jàngate nangu waxi kilifa itam. kon amul maanaam am fii moom ak fay bor a fi def waaye amul lu ñu leen fi amee lu ko suñ Fallu defaloon rek waa kër suñ Fallu yi fay nañ ko kon ñoo ngi ñaan yàlla sàmmal nu loolu. sàmmal ñu suñu taalibe ba dara du ci yàqu ba duñ doon lan lu ak taalibe te sëñ bi nangul ñu suñu taalibe ñu waa wàcce kàddu yi foofu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah